vont nous écouter. exactement ah oui le message que tu avais fait. ah Alain Giresse <laughs> alors Alain ko déglu bii ba koy neexee. Eh, defoon nga eh, ko delloo ko sa loxo damay ragal non damay mu def petit réewantu. amul problème comme jigoon na ko. ah te yow def nga mu jig la. ma defaat mu jig ko waaw kon ma defaat. defaat da nga bëgg defaat ma da ngeen bëgg ma defaat. defaatal waay. ma defaat defaat da bëgg ma defaat. <laughs> uy leen ma ma defaat yen ñu ñàkk fayda ngeen <laughs> télé bi dañ leen war a censurer yéen ñëpp yeewu leen éliminé <laughs> parce qu'on fatigue sa a <laughs> ah da ngeen bëgg ma defaat kon. ma ah, ah, defaat ah. oui mais on a confiance en nous aussi. Euh, tu sais bi may dànkaafu Alain Giresse on n'avait pas trop confiance en lui. Oui. mais maintenant je pense que ñu ngi commencé am confiance ci moom. n'est-ce pas léegi léegi nooy waxee nu kon bii pas te plaît Alain c'est tout pour au moins ñu dem finale c'est le minimum nañu dem finale au moins on a très envie de revivre yooyu ñu doon dund jamonoy Coupe d'Afrique Coupe du monde je pense que c'était en ah. et euh, voilà mais pour Coupe d'Afrique bi ren nag damaa bëgg nañ ñu may jàmm ak Caire 86 depuis que je suis né à chaque fois que Sénégal di dem compétition football kalaasu Ablaye Diaw gi dañuy fàttali ko Caire 86 est-ce que suñu njiglaay la depuis qu'on en parle euh, équipe bi deful ne parle plus de Caire 86 on laisse ces jeunes enfants là c'est des mm-hmm. enfants en mm-hmm. euh, euh, man naa leen jur voilà. waaw non. waaw nel waaw ma doon bëy taawloo leen comme li ñuy wax waaw TTC bi <laughs> mën naa leen a confiance